Babacar Mbaye Ngaraf ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. Euh, di fàttali ne yow yaay président mouvement Alliance Sauvons le Sénégal jiite tamit synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue. effectivement tey jii Babacar euh, mu amoon bu yàggul assemblée benn bilan euh, programme décennal li jëm ci mbënd mi ministre ay ministre de la République teewe fa wax ne 511 millions milliards ci suñu koppar ñoom la ñu jot a dépensé muy taux d' exécution bu toll ci 66 virgule 65 pour cent ci budget bi nga xam ne moom la ñu euh, moo doonoon prévision bi ca ndox ndorteel ba 766 euh, milliards tey jii noo ko jàngatee. waaw d' abord euh, dañuy bëgg a fàttali rek ni alternance bi nga xam ne moom la Macky Sall jiite mi ngi arrivé mi ngi mi en 2012 bi muy ñëw en matière de lutte contre les inondations fekkoon na fi ay réalisation yu am solo ñaar rek mën naa ko ci lim benn bi mooy tromper nit ñi nga xam dañu dëkk ci yoonu ndox quoi qu'on puisse dire leen toxal leen jël seen i kër ya dafa ay bassin de rétention a partir des bassins ñu créé un système de canalisation pour jël ndox mi di ko drainer vers les océans wala ñu yóbbu ci lac yu mag yi mhm. kon tey fekkoon na am lu bare bare bare loo xam ne woon nañ ko mhm. maanaam nguur gi la mu doon hérité woon ci wàllu contre les inondations mhm. defoon bu ndaw rek inondation te war na mën a jeex Sénégal ci boobu contexte éradiquer définitivement les inondations Sénégal ñu am ay cinquante ak cinquante deux milliards ils ont de sept cent soixante sept milliards lii c'est un programme décennal maanaam ci fukki at war naa jeex. Mhm. kon tey jàpp naa ne bu ñu boolewoon li ñu ci fekkoon ak la ñu waroon a def wax dëgg yàlla su ñu defoon xaajaat xaaj ba Sénégal tey leneen la ñuy wax wax wax inondation. Mhm. balaa nag maam lu ma gën a métti rek ñu waaw taw yi dañoo bari mais Elisabeth justement mhm. c'est parce que taw yi dañuy bari moo tax Sénégal yi d'accord casqué sept cent et quelques milliards pour faire face aux fortes pluies. génn wu ñu ay somme yu ngan pour faire politiciens yi fii ñu nekk ak li ngi def ci xaalis waroon nañu am résultat yu gën a yéeg téeméeri yoon bi jàmbat bi bare askan bi euh, fi ñu mel ni Kër Massar mm-hmm. askanu Sénégal gépp àndi ko na xaru ñëpp di laajte ana xaalis bi ana xaalis bi ana xaalis bi ana xaalis bi mm-hmm. ana résultat yi euh, plan national bi jur ana résultat ñëpp di laaj buñ tàmbar ñun bokkoon nañ ci ci le président d'accord ne nañ ko defal un rapport détaillé ci wàllu plan national bi mm-hmm. ñu tàccu parce que rapport bi encore une fois du solution waaye buntu la pour ñu mën a càmbar xam li fi jot a am. Mhm. ak fi ñu bëgg a egg fan lañ ci toll. Mhm. lan moo dox ak lan moo dox li dox nan lañ koy gën a renforcer li doxul nan lañ koy corriger président déglu ñooñu assemblée daal def une mission d'information c'est l'occasion quand même de la mission parce que ñëw nañ ci terrain bi. Mhm. na suñu acteurs nekk à la base dañoo ne effectivement rencontré nañ député yi wax lañ ñu gis wax leen la xam ànd ñoom doon ay xayma. kon démb naxaru nañ nekk en plein hivernage dina ko jël di indi ay débat biir assemblée nationale alors que inondation kenn di ko gérer pendant l'hivernage tubaab dafa ni prévenir vaut te mu nekk dëgg ci yow balaa nawet di ñëw nga def xayma xool euh, tey li nga am ci résultat est-ce que mën na la permettre nga faire face aux inondations wala fexe am mm. su dee non yan disposition nga mën a jël ban disposition nga mën a mettre en place ba mu mën a sonal askan bi mais defuñu ko jaar. Mhm. ci ay xew-xew yóbbu ko procédure d'urgence foogoon naa ne nag lii moo gënoon mérité procédure d'urgence. Babacar taux d'exécution bi ñu ne ndax loolu méngoo naag li nekk ci terrain bi. moom laa la wax hmm. euh, nga bu ñu fàttee liñ ci fekk. mais mais euh, euh, il faut il faut tamit ñu ku ne ba Macky Sall di soog a egg si métti woon na torop ca Guédiawaye Gounass. gisoon nga la fa xew donc voilà bu fekkoon tamit ay jéego. ko amoon na fi laata muy ñëw mais il faut quand même reconnaître que moom it ba mu accès am na lu mu jot a def. mais tout tout mais loo koy nangu nañu ko bu wér. Hmm. mais xam nga xam nga xayma maanaam objectif soo koy évaluer. Hmm. maanaam résultat soo koy xayma. Hmm. da xayma objectif bi nga fixé woon sa bopp ak aussi moyens yi ngi def. yow jigéen dama la jox exemple jigéen. tey sa borom kër. soo ñëwee mu ne damay amay gan kër yi ko ci dépense cent mille francs jox la nga dem toggal ko sombi mhm. naa ko noo togg naa sombi de sombi am na meew am da nga koo parce que cent mille francs ëpp na sombi dëgg la

Mm-hmm. état toj na seen i kër wan leen toxal jaxaay jaxaay abandonné nañ ko ñoom ñu ngi toll talaan deux mille ba deux mille tey deux ans après ñu ngi nekk ci location loolu amul lu ko jaxaay googu nga tudd Babacar Mbaye Ngaraaf gis nga la fa xew daaw euh, wax nga ko sax ci say biir wax ne taw bi euh, dafa bëri mooy prétexte bi nga xam ne autorité yi moom la ñuy joxe euh, tey nga gis jaxaay mu doon zone de reclassement teewul moom it zone boobu moo ngi jànkonteel ay jafe-jafe jëm ci mbënd mi euh, tey nan nga jàngatee nawet bi egsi justement ñu gas côté yooyu yëpp euh, li jëm ci ale Kër Massar euh, Jaxaay entre autres yoon boobu. waaw loo xam ne loolu yëpp ñàkk prévision moo ko waral quoi Sadio xam nga réew mi danoo bàyyi lépp ndax politique bi. maanaam la politique dafa jël temps wu ñëpp nekk ci xel yi xol yi ba kenn taltul leneen. kon jàppoon nga ne du priorité daal moo tax ñu fàtte ko. non non non non léegi nag travaux yi am na solo parce que yi nga xam tey jii moo xew ci banlieue bi ba nar a aggrave situation bi bi mooy ay lu ci mel ni élargissement de la route des lu baax la. prolongement de la VDN lu baax la. Mhm. Euh, construction BRT euh, tali pour bi lu baax la. waaye dafa fekk soo koy def nawet di jëkk da nga jël disposition ma tey jii loolu ci mën di dégg yi tey jur na ay mbedd yu nu gas ay kan mhm. ay ay ay ay jali suuf yoo xam ni quoi qu'on dina am jeexital ci wàllu yoon mi ndox mi tàmmoon di jaar ngir dem fam daa dem mhm. moo tax ñu tiit ni inondation yi bu fekkee ne Sénégal kañ taw na la mu tawoon daaw wala at yi ko jiit inondation yi mën naa metti xanaa kañ bu dese ñu rek tàll suñu loxo yàlla suñu borom di ko ñaan taw baax na waaye mu nekk taw yoo xam ne du bari bay lor askan bi waaye de kon daal ren da nga bëgg ne am nga tiitange ci euh, bu taw bi bëree ci diwaan yooyu am nañ tiitange bu wér te it am na lu ci yokku lan parce que nawet bi dafa ñëw juste fekk découpage administratif koy saa di am. justement ba dinañ ci doon waxtaan seen xalaat euh, euh, foofu ci diwaan bi. waaw xam nga gox-goxaan yi sax moom lu am solo la parce que ab dëkk dafay màgg. Hmm. Pikine na na yenn jamono yi di màgg di màgg di ba Kër Massa tamit toll nañ loo xam ci dayoo am na service war nañ ko mën a gën a jege pour def gestion de proximité hmm. kon tey jaadu na ñu def ko département loolu amuñu ci benn benn difficulté benn contraire dañ koy saluer hmm. mais dañuy en matière d'inondation maanaam équipe bi nga xam dañ fi nekkoon. Mhm. dañuy ragal ren jii ñu am benn problème de coordination parce que c'est une équipe départementale. dëgg la. dispositif bi am ay membres yu ko nekkoon yoo xam ni par exemple comme tey jii Kër Masar amagul sapeur pompier amagul préfet préfet jëlagul sax service les sous-préfectures là de de Yemba jëlaguñ service. moo sunu xel mu gàtt mairie ba normalement délégation spéciale war na faa dem. moo ñu ñu jàpp sunu xel mu gàtt a bàyyi découpage yi ba au moins affaire u nawet bii paase ñu dem ba décembre ba jege inondation ba jege euh, élection yi ñu def ko mais boobu départ dépassé nañ ko li nga xam ne xamal daal suñu xel mooy dégg nañu ministre bi ni dinañ taxawal benn dispositif parallèle bu mën a gérer faire face en attendant beneen année bi wala ju topp mbir yi hmm. waaye nag buñ ci jugul lool daal mbir yi mën naa jafe lool de. Babacar Sauvons le Sénégal mu doon benn kuréel bi nga xam ne yaa ngi ko yor tey jii ca Géejawaay mu am coow lu fi jegoon bu yàggul muy euh, déclassification cent cinquante hectares euh, bande filao bi euh, ñu dégg ci forum civil dégg ci ñu bëri waaye yéen dafa mel ni dégguñu leen ci lu xew. war na xam nga déclassement bi moom man bokk naa ci waa Géejawaay te def naa ni Géejawaay gépp sax àdduna nag moom ñàkk ñëpp sax am na ñu taxaw ne gëmuñu mm. ci yàlla yàlla nañ ci yàlla mucc yàlla waaye li ma xam ne mën naa koo wax mooy Guédiawaye moom maanaam pour ne pas dire quatre vingt dix nañ ci déclassement bi mm. parce que dëkk Guédiawaye dafa yàgg def ay effort pour jëm ci développement ndax Guédiawaye dafa nekkoon si li door ay mille dox ba Guédiawaye tey jii yàgg na sax mm. teg tànkam ak teg bëtam ci nekk une ville de type moderne yooyu jéego muy def nag da ci doon ay difficulté place yoo xam dana ko mu mën a am yenn infrastructure yi yenn équipement yoo xam dafay toll ak dayoom tey parce que Guédiawaye mille neuf cent soixante dix dix mille nekk fi mais mun te yem ak Guédiawaye tey xam ne ay yi jàpp soxla lu ci mel ne par exemple stade ndax stade Amadou Barry bi waxuma la bu tax waaye bu xëyee sax mu tax te tey jii ni Guédiawaye toll war nañu stade boo xam ne moom moo ëpp te gën stade Amadou Barry nga xool ci wàllu sport également fii am na ci boy bare ba xam ne ñu nekk ay jàmbaar yëngu ci wàllu ci wàllu mhm. waaye ku ne xam mbër yi ñu ngi daan entraîné ci école yi école yi mais depuis un mhm. ak suñu géej gi ni mu mel war nañu mën a amee ay espace xam dana tax boy mbër mën fa nekk di entraîné war nañu également aussi def benn parcours sportif boo demee li ci mel ni bu am biir Dakar mais mag ñi ak xale yi mu nekk ak di tàggat seen yaram am na également benn sport bu commencé développé wu ñu koy wax beach soccer mhm. maanaam pour mu yëngu ci biir géej gi géejawaay jàpp ne war nañu ko mën def fii suñu plage bi fii di ko fi defee ñu gis ne aussi géejawaay war na am tey ji université am war na am salle de spectacle géejawaay ci wàllu art ci wàllu ci wàllu ci wàllu art et culture mais salle de spectacle ba am na lu mu ci mën suñu artisans yi ñoo xam dañoo nekkoon ay mécaniciens ñi nekk ay menuisiers ñi nekk ay garagistes ñi nekk ay ay laba yi yet ñi nekk femmes yi def teinture dañ daa ñëw rek ci mbedd mi nekk fi depuis 2016 moom ay travaux yoo xam dafa tax ñu jël leen fa ñu nekkoon def fa ay am na war a dugal mais borom kër kay mais soo xañee place bi liggéey am mënut a Dakar fi la a liggéey fi ñu war fa am ay parc artisanaux pour dugal fa ñooñee ñu mën a continuer seen liggéey war a am également aussi un centre médical boo xam dafa nekkoon tribunal départemental rek depuis un certain temps mu jóge ci nekk un tribunal de grande instance mais amul benn respect bu mu euh, am ci ni ab tribunal grande instance ñu ci sonoo géej may am woon cimetière ñu def nañ prévoir cimetière chrétien cimetière musulman te loolee jàpp nañ lu jaadu la ñenn ñi nga xam ne dañuy wax ni d'accord ndax filaaw yi la ñuy wax te filaaw yi déclassement bi bàyyiwu ko au dafa indi solution ndax filaaw yi ku waxal yàlla ak sa ak laay taala hmm. xam ni filaaw nekkatul woon géej waaye daf ne ko seen di boo amoor dafa am dafay juddu màgg Maguette Deye filao yi nekk ñu ngi fi implanté woon entre mille neuf cent quarante huit hmm. ñëpp d' accord nañu espèce bi durée de vie am ba mu ko atteindre kenn xamul kañ la on n'a pas besoin d' être technicien pour s'en rendre compte ñëwal gëj waaye am say bëri xam ne lii fi nekk du filao bo mort la le bois mort amatul njariñ parce que jeu tour bi ñu xaar ci yi ñan ñoo koy jë jëfandikoo ay samba boy ku fi ramuñ agressé la daw làqatu foofu mbaa borom sareet yi yéen borom sareet yi du ñëpp nag dajale seen mbalit ak ay nag yu deeg xar yu deeg fas yu deeg di ko sotti fi muy xëjal xunn ci askan bi mais léegi décret bi permettre na mhm. ñu amaat filawoo naka diggante géej gi ak tali bi dañ fay def jëmbat ay filawoo yoo xam ne Euh, dana tax mu nekk fela boobu mën a ju rôle bi leen joué hmm. te li tax euh, hmm. na ñooñu banque mondiale waaw ah, Elisabeth ak yeneen partenaires yi ñu am ci ñuy def dinañ sàggan ba jël ay centaines de milliards dona ci am tali boo xam ne de sens am jël na ko bi ci njëkk mooy dana permettre géejaay mën a yokk assiette foncière am Mm-hmm. mën a accueillir ay infrastructures de type yow de yoo xam ni daan koy soxla ci lu moderne waaye aussi dana tax sunu amul nëbbatu dana tax aussi sunu borom sunu kër sunu ndaw yi nekk sunu kër yi am soxna ami doom soxla kër te kër cher lool terrain cher lool ñu mën a am fu ñu def seen lotissement am fu ñu fu a amee kër léegi nag ci li may jeexale tey combat bi nga xam ne moom mooy combat bi war ñëpp mooy fexe ba déclassement bi bañ a nekk rek benn décret bi bañ a nekk benn acte boo xam ni dafay valider ay opération frauduleuse yoo xam ne ay samba boy yoo xam dañoo ay lool ci wàllu euh, foqat ñi suuf. suuf jël ko ci askanu Géejawaay te commencé na am nag moo tax depuis démb ñu taxawal benn kuréel bu tudd taxaw temm. a ah, beneen kuréel taxaw na. ah taxaw temm biir Géejawaay boo xam ne mi ngi mi ngi regroupé délégué de quartier yi ay ay imam ay chef religieux. ay mouvement citoyen ay homme politique ay groupement groupement d'association de jeunes pour lan taxaw temm ba suñ déclassement bi Guédiawaye bañ a nekk dindon de la farce ndax xëy def ay lotissement ñuy wax ay seen foot un weki ay seen foot deux ay nit ñoo xam ne ko jógee ñii Mamel ñii Almadi amuñu soxla waaye dëkk fa dañ ko ñuy def lotissement jël ko di ko jaay à prix yoo xam ne sax ak ñu ñuy dëkk amuñu dëggam loolu nag moo tax ñu ngi ciy woow a de l' di ci woo également le ministre Abdoulaye Daouda Diallo di ci woo le ministre Abdoulaye Seydou Sow opération yi fi gars yi defoon teg ko ci fraude te ko ci wuruj ak seen seen service domaine ay karas loolu du fi am dañ am ëllëg duñ ko nangu parce que géejawaay du nekk dindon de la face. Hmm, d'accord jaxasaay pour lan la pour géejawaay la ci géejawaay yi def luñ ci bëggoon def def ci li ko taxoon jël ba pare. Babacar Mbaye Ngaraaf ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa leen jërëjëfal bu baax a baax man tamit.